lii machine bi yaa ko defar ñetti gopp nii. waaw ñetti ëllëg nii. ñetti ëllëg yi nga ko defaral. ñetti ëllëg lay doon benn bi bay ci digg digg bi ñaari di bay ci ci pegg bi. Mm-hmm. machine bi bépp fonction bu ne ci tool yi da koy def bépp dina ji di bay day deqi. lii lan la. lii mooy frein bi. kaay taxaw nii comme ça ñu mën laa gis. lii frein la. loolu frein la waaw. ah boo dawee ba yàgg. moom ngay téye mu taxaw. moom ngay téye mu taxaw mais nag dama ko modifier frein boo xam si ne boo ko bàyyee nii mu taxaw. léegi booy bay da nga koy téye nii en même temps ndax bu la mënoon a rëcc tey mën ngaa fëkk salu dal ci dara xeer wala dara mu rëcc la def nii di dem dootoo ko gaaw a jot. Hmm. comme machine la déggul kor. Hmm. léegi da nga koy téye nii. <laughs> déggul la déggul kay déggul la déggul kor. <laughs> déggul kor nii nga koy téye muy dem. su la rëccoon tey nii day taxaw du bouger centimètre. du bouger centimètre fi mu. mais léegi machine bi. waaw ah. nga ni lan lay def day ji. dana ji waaw dina bay dina deqi. dugg si nii tuuti comme ça lumière bi gën laa génn. non non kaay taxaw nii taxaw nii waata taxaw nii. nga ni dina ji. maanaam dana ji dina bay dina déq dina labouré tamit. maanaam bu tool bi amagul dara. waaw mën na ko naa ñëw jeqar bi suuf si. jeqar bi suuf si labouré ko. waaw mën na ji tamit mën na déqi mën na bay. bu amee ay mauvaises maanaam eh, yenn eh, ñax yi sax ci biir tool bi. lépp mën na ko dindi. mën na koo siparñ. mën na ko siparñ teg ko ne. bay ba mu set. bay ba mu set en même temps kii day am benn vago boo xam ni day yor deux ci gannaaw. nga teg ci sa machine yëpp yi nga soxla yëpp yéeg ci di ko dawal. ma mbaat boobu kii boobu dafa diis moo tax kees gi moo tax mënuñu ko indi. maanaam lii fii ngay denc mbir yi. mbir yi fii la ne ci biir. fii ngay denc jiw beeg yooyu. déedéet fii ay seen moo fi ne ay bagages yi ñu ko liggéeye matériel am lii moom jotewut ak nji mi dara. fii ngay démonté fii. ñaari vis yi ngay démonté. waaw ñaari vis yi. waaw daal di roof machine mbay bi. Uh-huh. boo paree nga rocc ko roof machine mbay comme ni ma ko roofee nii. Uh-huh. waaw léegi sa machine bi dama gis ne dafa bëri ay protocole fii. waaw ah. lii lan la essence. lii gasoil lay def mbandu ah. gasoil. gasoil lay def. te dafa am sécurité ba boo boo xoolee doo gis en fait. du am accès dafa am segukaay boo xam ne pour salte bi salte bi du dugg si biir kii bi. est-ce que je peux montrer ça kii bi quoi. Ah, ok. da koy triquer la quoi. filtre la. pour résidus yi. waaw pour yooyu. nga moom lépp luy salte nekk ci gasoil bi war a yàq machine bi. da koy da koy génne da koy waroon nañ ko am suñu oto yi am ñu am gasoil. ndax oto gasoil borom yi moom. co. puus na léegi lii moom machine la moom lii moom ab moteur la moom. moteur la waaw moteuru lan la. moteuru Kama la tudd. moteuru Kama. waaw moom pour machine mbay ko tax a jóg. machine tax ko jóg groupe alimentaire moo ko tax a jóg. groupe groupe bi alimenté courant moo ko tax a jóg. Mhm. mais dañ ko jënd raye raye dynamo bi génne courant ñu monté fee pëli pour mu mën a transférer fee muy dox. yow yaa ko jël. raye raye raye dynamo bi. maanaam dindi moo bi joxe courant bi. waaw di joxe courant bi ma dindi ko teg ko ne jël moteur bi defee ko fii mu koy dawal. Ah, Alassane Thiam yaa ngi expliqué ay affaires yoo xam ne c'est très technique da nga ko jàng wala sa expérience su liggéey la. waaw am na loo xam si nii def naa ko formation. xaaral ma woon leen benn affaire yéen ñi nekk si plateau bi. ñu ko bëgg a taal waaw dama ko bëgg a taal ba taal mën naa nekk taal xëccal. aya. taxaw taxaw fii mooy escalateur bi nii moo koy fay boo ko bu delloo ba àgg nii du hmm. tàkk. Hmm. mais boo ko defee nii hmm. day tàkk. ah léegi après. musuma taal lii moo tax ma ko ko takk. ah ko takk taalaat. ay man jiguma vélo ay boo kaa ñu dem toog ñu wax xam nga fii nga jëloon vélo man machine jiguma man machine yàlla moo ma ci a jóg ñëpp a yuuxu ay akbar mais quand même. mais li gaaw non non nii nii nii nii nii nii nii nii gars yéen ñii seetaan je pense que tey. tey moom vous vous êtes servi. si li nga xam ne mooy l'ingéniosité sénégalais te li si gën a grave li si gën a grave mooy yenn dana lenn li lenn li damaa def formation bi wante li si deneen yëpp sama xalaatu bopp la maanaam. regardez mon mouchoir. maanaam. huile bu dee bi. dafa am benn débat moo doon werante démb mooy. instruction ndax jàng école tax na am xam-xam Alsaan wan nañu tey ne xam-xam du jàggi na dem jàngi école mais xam-xam mi ngi toll si tarbiyu benn liggéey ñu formé la nga puus sa xam-xam. Mhm. bañ a yem si li nga xam ne ne moom nga yem. yaa tax ma inauguré sama DJI. <laughs> déw bi tey. yow Alsaan euh, Alsaan. lii nga créé nii mooy avant ñu ñëw tracteur bi. lii nga créé mooy. fourneau bii nga xam ne bu dee moo koy defar. Ah. boo ko doon defar à échelle euh, industrielle ñaata nga si mën a defar par jour. no comme liggéeyu lu liggéey doole liggéeyu bopp la. du du munoo <laughs> doole moos. waaw liggéeyu bopp la munoo tëb tëb rek ne temps laa ci liggéey am da ngay xëy boo sonnee wàcc maanaam tubaab li tax mu raw ñu foofu noonu la bu liggéeyee bu sonnee day wàcc mais ñun sénégalais dañuy topp benn mbir topp ko topp ko topp ko ba mujj gi dañuy yàq mais dootuñu defar ndax seen xel mooy sonn. Mhm. da ngay def tuuti boo sonnee nga teg ko nee dem xalaataat boo ñëwee li nga defoon sax mën nga xalaat lu ko gën kii mais bu ma ne laa mën naa ko defar lépp lépp lépp ci benn jour. loolu moom day. non léegi boo defar benn ñaata jour lay jël. maanaam benn boo doon defar benn gën gën fan. ñaari fan ñaari fan mën na pare waaw gën ngaa bëri ñaari fan. ñaari fan moom na pare. baax na boo paree appareil bi yaa ko ciy def wala nit ki mooy dem uti ko. non bu ma la fayoo 75000 lépp maa ko ci def libéré la ko. yow doo def leen lu du togg bu mu la koy libéré damay defaale huile libéré la ko bu jeexee nag yaay def huile yow def huile rek lañ la sant ak taal waaw def huile rek ak taal rek lañ la sant bu dee machine bi tamit def gasoil bay amul leneen loo ciy def ku la bëgg a jot sa numéro de téléphone lan la 76 120 62 46 numéro Alassane Thiam a ngi nii 120 62 46. ce Sénégalais mérite d'être soutenu d'être appuyé. maanaam liñ génne nii li ne ci ñun moo ëpp mais amuñu fuñ fu ñu dimbali bañ mën a génne li ci des ndax am na loo xam ne moyen lay laaj ci amuñu moyen boobu. en tout cas je pense que ministre de l'agriculture moom mi nga xam ne ne <clears throat> mi ngi doon prôné li nga xam ne ne mooy le made in Sénégal je pense que ministre de l'agriculture am na wàll. ci tracteur bii parce que tracteur bii nga xam ne ne créer nañ ko. ñun dañ daan dem di jënd ji ay affaire yu bëri yu mel nii. bitim réew di si commandé ay mille et quelques. donc bu ñu amee doomu Sénégal boo xam ne il faut nous produire ce tracteur bien vrai que ne moom ak du benn je pense que tous ces lépp loo gis dañ koy update. dañ dañ koy améliorer dañ koy mettre à jour mais je pense que. carrément que ni tey li nga xam ne moom la ñu Alassane Thiam présenté ministère de l' agriculture am na si wàll mais ministère de la recherche scientifique tamit bu docteur euh, euh, Abdourahmane Diouf ma docteur ma euh, monsieur le ministre docteur Mabouba Diagne ñi ngi lay ñaan nga nga jokkook wala say ndaw jokkook Alsane Thiam li nga xam ne moom mooy huile bu dee bi ñu ñu présenté ak fourneau bi je pense que enseignement technique supérieur innovation docteur Abdourahmane Diouf am na si tamit wàll parce que genre jeunes yu mel nii lañu war a jàpp protéger leen xam nga keroog yaa ngi doon dénoncé am lu amoon Louga ñu jëloon ay xale yu ndaw di leen organiser tànn biir ba teg nañ loxo li nga xam ne ne moom mooy mini euh, ka doon tëgg ak ka doon cinéma ka doon filmer ka ko organiser yëpp yoon teg na leen loxo ndax ay xale yu amagul cinq ans ngeen leen organiser tànn biir ñuy exhiber. léegi nag dëkk bi yëpp dañoo partagé dañoo partagé woon video boobu di si indi wu ñu ngi ñaan walla wa ngalawaay yéen ñi partagé woon tout ce tralala di si indi wu voici une chose boo xam ne. c'est fait pour nous par nous pour nous porter ça partager montrer saa dagg leen comme comme ni ngeen di def di wan lu ñaaw nañu sawar tamit ak Pastef bi ñu am si wane lu ñaaw ñu koy wan lu baax en tout cas Alassane Thiam jërëjëf. tey wax dëgg sa yàlla kontaan naa trop trop trop trop ab si. Mm-hmm. Baye Cheikh yow dañuy ànd léegi euh, ndax maa ngi gis réalisateur mu mel ni ku gëmëntu <laughs> mais ci biti moom danaa dawal moom. man moom dawali plateau yi dama ko wàcc. da ngeen a fekk ma bàyyi. dama fi doon dawal ba bis ma am fi bës mm-hmm. tey naroon naa fee mbëkk siidi mii damm tànkam mm-hmm. yi. xam nga loolu mbañik rek la jik mm-hmm. ay damm tànk. wax nga dëgg mbañik dañoo dammoon tànkam ci ay dawal <laughs> ay histoire yu garaaw laa lay nekk man samay wax yëpp punchline la. donc on vous donne rendez-vous très bientôt dinañ ci def suñ